Euh, docteur Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi leen fay Ndeye Coumba. voilà docteur euh, Cheikh Seck nga nekk porte bu euh, fédération des syndicats de la santé récemment ngeen def benn communiqué pour ñaawlu ñàkk respecter accords yi nga xam ni si woon ngeen ko ak état wu Sénégal est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci accords yooyu la. waaw accords yi xam nga dañ ni fi mu toll nii ñun amuñu sax revendication bu bees. boo gisee li doon gën a jafe mooy signé accord bi ñu ñëwee tamit ñun duñu gisoon ni dafa am ñoo xam ne ñu ngi leen doog fal boo ñu ne nag tamit comme ñi ñu ngi doog a ñëw nan leen may dal ñu toog ay certain période bi ministre bi amee weer mu wooñu ñu toog rappelé ko li nga xam ne mooy suñu préoccupation loo xam ne sax dafa amoon ay échéance te période boobu lañ ko waroon démarrer ñu gis ni depuis boobu ba tey dara yëngatu léegi mu war a mat ay ñetti weer wala lu ko topp loolu ñu ne dafay poser problème te ñu dañu seetlu ministre bi mu fi ñëwee ba tey amul benn changement boo peut-être ba bërki démb sax lay doog a namee benn directeur de cabinet mais bu loolu ña fa nekkoon yàq système bi ñoo fa nekk ba tey ñu ne nag mënoo ñëw nga ni tey dama bëgg rupture dama bëgg changement dama bëgg jëm ci kanam nga ni même bu may saytu nan la ñu yoree woon ministère la santé maanaam li tubaab di wax audit dama koy dénk ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo yàq foofu. nit ki tamit du am lu bon lu muy def di ko génne nan waxante dëgg ñaareel bi aussi moo di loolu ñu jëm ci mu réglé moo di mënoo toog nga ne damay liggéey ñu ne tey ci hôpital nga nekk nga nekk ci structure yëpp ñu jël fonctionnaire yëpp jox leen indemnité de logement ñi amul indemnité de logement am indemnité spécial nga dem ci hôpitaux yi nga xam ne tey jii hôpital boo ci gis boo jëlee ñu ne la ñeenti agent ñoo fa nekk benn agent rek la état di fay ñett yëpp hôpital moo leen di fay ñu commencé am ñenn ñu ni fay indemnité de logement ak yeneen indemnité ñeneen des ñu ne leen jox fan lañ ko teg mun leen bokk même jàng bokk même diplôme bokk lépp di am jafe-jafe ñu ne dañuy jox kii jox ñu keneen bu doon kii dafa nekk public sax kii nekk privé ñu mën a wax mais ñëpp ñu ngi nekk ci biir service public loolu dafa poser problème mu am loo xam ne aussi lu nu demandé woon état la ci engagement ci problème recrutement personnel. mu koy xaar ba tey te loolu loolu ba tey gën gën réglé wu ko mu amoon lu jëm fàtte naa ko léegi ci français bi peut être wax ko mooy euh, problème mu reclassement wu infirmiers yeeg techniciens supérieurs yi ci seen hiérarchie bu bees muy hiérarchie B1 pour les pour les premiers euh, et hiérarchie A pour les pour pour les autres. parce que nit ki mënul jàng amaat beneen diplôme am fu mu war a nekk depuis booba tey mënuñ leen reclasser te loolu waroon na jeex depuis lu lu weesu ay ay at te benn lettre rek bu ministère la santé bind envoyé ko la fonction publique ñu traité dossier ministère fonction publique nee na ñu dossier yëpp mais kenn kenn kenn saisiru leen mais kat moo leen war a saisir mooy ñi nekk DRH ministère la santé mais kooku ci la ministre yi appuyé te ñooñu mosuñu ko wax fa dara ñu loolu mu am lu jiitu woon loo xam dañ ko teg suñuy camarades yi. mu metti ñuy xaar ñu corriger ko yemuñ ci loolu ñu jël ñeneen ñoo xam ni danoo taxaw gis ni ñu ngi yàq système bi muy waa Talibutaa boobu ñu jël leen dugal leen kaso taqal leen ci loo xam ni lépp dara du ci dëgg lépp ay kàcc la ay nit monte seen i yëf de toute pièce malheureusement sàccum dënd yow mën na waaye fa nga koy tëggee mooy def ko bi ñu demee def nañ ay enquête yóbbu nañ ba ci juge bi juge ñoom ñëpp gis nañ ni dara nekkul ci dossier bi ñu xam ni léegi ñoom bu ñu demee dinañ leen humilier ñuy ñuy demandé report report mais nit mënoo taxal nit nga ne kii moom a sàcc ñu ne la kaay nga wax ñu lu tax mu sàcc la nga indi preuve nga naan may leen ma ma dem uti ji ma ma preuve parce que ñu ngi press def ay pression ci ay nit pour ñooñu ñëw témoigner pour ñoom alors ñooñu ñu waxoon ñoom lañu cité woon ne ñoo ñooy témoigner ñooñu ñëpp nee nañ bu ñu demee sax tribunal ah la ñuy wax ñoom dëgg gi la ñuy wax mais kan moo def loolu mooy ñoo xam ne dañoo ñëw ku nekk xam na Talibou Dabo ay affaire u handicap ak affaire u de la moo fa nekk or tey dafay am ay fonds yu bari yu nekk ci monde bi yoo xam ni dañ koy mën a capter moo tax mosuñu nangu taab Talibou Dabo mu am statut xam nga hôpital bu amul statut bu dee ay fonds la biir ministère lañ koy gérer donc ça veut dire que ni vache laitière la koo ñëw na fii ne dañuy dimbali projet boo xam ne mënoon na egg ba huit cent millions. mais départ bi cent dix millions rek teg mais projet bi lan moo tax lan moo lan moo tax eggul mais loolu lépp la nit ñi dénoncé nga jàppale naan da nga leen da nga leen tëj kaso te amoo benn preuve bu ne loo xam ne yow da nga ni flagrant délit flagrant délit kay soxlaatul leneen amatul instruction amatul enquête am na ay preuve yu matériel ndax dafa soxla ñi ñuy différé bu doon situation direct sax ñu mën a mais flagrant délit dëgg dëgg nag bu ne dañ koy différé bay demandé waat ñuy différé ça veut dire que amoo preuve bu am nga preuve da naan nan jugé tey ñu condamné leen teguñu ko fenn parce que ñooñu dañuy nekk di wax et loolu la ñuy wax mais li ñu li ñu metti ñun du question lu ñooñu def parce que ñooñu xam nañ leen xam nañ ay at ni ñuy doxalee xam nañ depuis ay at li leen indi foofu kooku ñu lay wax noonu ñu teg ko foofu politique kese moo ko fi indi su ma leen waxoon niveau parce que bugguma citer corps bu mu nekk pour ne pas frustrer ña fa nekk wala ñuy xalaat ndam leen a xeeb mais ñooñu seet bopp seen formation sax nekkul sax bac plus un an ñu bugg la jox un établissement publique de santé boo xam ne fonctionnaire hiérarchie A moo fa war a nekk te yow mosoo dugg santé dafa garaaw te du moom kese léegi kooku dem manipule ñëw ni la ministre way defal leen la demal saisir agent judiciaire de l'État yow ministre nga gaaw gaaw rek takkal ay nit def communiqué bay bay dem di saisir agent judiciaire de l'État ak saisir procureur ci kilifa non c'est trop léger. te loolu daf ñu métti ah dëgg-dëgg amoon nañ cër bu mat ak respect ci ministre bi fi nekk mais yaakaaruma woon ni ay détails dina koy gérer li xew ci poste de santé nanu bàyyi chef infirmier chef de poste bi gérer ko bu dépassé ñu dem niveau régional yaa une direction régionale de la santé balaa muy egg ministère balaa muy egg ci ministre bi mais lu yem ci niveau périphérique yow ministre nga jël ko ba yenn ko yow sa bopp wax ci wax ju rëy ba pare tey jii ngay ngay ngay toog xamatoo sax jël ay preuve kenn du fragilité état te ministre côté boobu wax nu ñu koy demandé mu xoolaat mu xoolaat mu xolaat nu muy doxalee ak nit hmm. ñoo ñu ñoo ñëw di ko di ko utal sax même ay syndicat am na benn syndicat bu mu jël ne ko ñii ñoo fi majoritaire ba temps yëpp dañuy écarté ci activité yu bëri yu ñuy def biir ministère mën nañ nekk fédération nekk huit organisations syndicales du secteur de la santé et de l'action sociale alors que secteur bi li fi nekk ay syndicats matu matuñu matuñu matuñu douze matuñu douze nga bëgg wax ni ñoo ñoo ñoo majoritaire léegi ministre bi ñoo ñu lay waxal def nañ ko fi ba benn activité amoon fi récemment dans les régions mooy campagne présidentielle bi ñu dem ci ñooñu xaw ma lu mu diil ak ñoom ñoo ñu taxaw ne leen non ñu ñoo contrôler lépp activité bi dina am mais loolu day merloo ñenn ñi ñeneen ñi leen xaar na di ngeen am dem leen dem leen laaj leen bi ñu defee seen résultat amuñu fenn fu nu am 22 pour cent ka ko waxoon digal leen ko ba mu retraité léegi mat na 12 ans. comment une personne peut avoir soixante-dix ans ñëw di la wax ni moom mooy contrôler man ma nekk nii maa ngi wax ak yéen nii biir hôpital laa nekk damay xëy di jël samay maladie liggéey pourquoi on s'appuie sur des personnes qui ne sont plus dans le système ñoo xam ni jànguñu santé ñoom la ñuy jox ñu nekk ci direction hôpitaux yi ñoom ñooy nekk ci direction yi ñuy décider ñoom ñoo nekk ci ay tetu syndicat yi ñuy nekk seen seeni complice ñu def benn réseau def ay deal ba pare wër ndomba ministre bi à l'heure di ko def lu nekk ñu suudal nag lu seetaan ñu ñuy dugal ci kàmb balaa kenn duñ dugal ci kàmb ñu dugal la ci kàmb baa bu ñu dugal ci kàmb dinañ la ci ànd ak yow ci biir kàmb gi j'espère qu'on n'en arrivera pas là te pour ces raisons ñu ngi lancer appel aux autorités. ngeen wax aussi si que euh, situation liggéeykatu collectivité euh, locale yi euh, Cheikh Seck. waaw mais collectivité locale yi mooy li ma la wax rek xam nga yow boo ñëwee nga nekk ministre nga ñëw gars yi ci lii ñu la wax nii de mënul nekk gars yi vingt et un milliards la ñuy laaj xam nga yow bu dee autorité nga xam sa budget ak li nga fekk mais da tiit alors que mbir mi demul noonu ñu ne la ñoo ñi seize mille personnes la te genn waa duggee baaxul ñu ne néew ñu leen défendre ñoo xam ni ay affaire politique moo leen fee ñu jël leen ci mairie te amuñu qualification mais dañ ni bu ne am nañ seize mille travailleurs d' accord nii ni nañ nañ def toilettage ñu dem xool enquete ñi ci am diplôme ak ñi nga xam ne war nañ fa toog bi ñu ko defee dem nañ ba premier lot bi ñu génne 7000 personnes la woon mais ñooñu wóor na leen ñii seen contrat baax na tegu na ci yoon waaw mais booy réglé doo réglé ñooñu te ñooñu pour régler seen problème presque ci un milliard rek lay topp toll par mois léegi yow nga bëgg toujours di mettre en son 16000 personnes 21 21 milliards. du loolu lañ demandé nan woon nit ñu waxtaan mais du taxaw rek ci rajo saa yi la tàllee sa micro nga ni non ñëw leen ñu waxtaan ñëw leen ñu waxtaan da ngay bind lettre comme ni ko ministre fonction publique def ministre fonction woo nañu jeudi ñu toog waxtaan na bind lettre woo leen bu ñëwee nañ ko dox solution donc bu ñu nee seize mille personnes mooy mooy mooy mooy mooy vingt et un milliards par an mais sept mille personnes xanaa xanaa mënul nekk vingt et un milliards ba tey te vingt et un yooyu ñuy wax sax at lépp ça veut dire que boo ko diviser par mois peut-être ay deux milliards lay doon wala lu lu tegu xanaa duñ ne ma nag état Sénégal depuis bi crise bi amee ba tey mënul mënul mënul mobiliser deux milliards pour li nga xam ne mooy presque cinq cent collectivités territoriales yi nekk bi Sénégal et loolu day régler problème bi nit ñi mën a delluwaat bi jot seen i pièces yi fi jaar ci yoon parce que yi fi métti na ci ñëpp defe naa loolu la ñuy séntu ci état. état bu ne génne naa deux milliards séddale ko cinq cent collectivités territoriales pour ñu mën a jël en charge ñooñu ñu wax ñu ngi fa te du fa sax egg parce que sept mille personnes ba huit mille personnes wala neuf mille eggul foofu loolu la ñuy demandé et la mais na ma wóor ñu toog ñu mais temps yi dañu gis ni ñi leen séq dañ leen di écarté ci ñeneen ñi nangu ñu sax ñu toog ak syndicaliste yi parce que dañ leen di muural seen bët fattal leen seen nopp. pour defloo leen loo xam ni ñoo fi nekkoon yàqu te ñi ma lay wax nii ñu ci bëri régime bu ñëw ñu changé veste cest à nekk nañu ay socialiste nekk nañ ay ay ay ay libéraux PDS Ablaye Wade daanu ñu ànd ak Macky Macky daanu ñuy ñu léegi ñu convertir gars yi ñoo leen mayul bunt rek yàgg nañ ci système bi yàqkat yëpp ñu naan ko kaw au niveau de la santé ñi ma lay wax depuis quatre-vingt-dix-huit ñu ngi fii di yàq nag ñii ñii ñu jiital ñoo war a xoolaat seen bopp ba seetaan mm. parce que Sénégal bi ne dañuy élire président Bassirou Diomaye Faye mu musu la am mooy premier tour lañ ko fal ku ñu fal premier tour ça veut dire que rupture lañ wax bëggatul dara ci li fi nekkoon mën a nag yaa ngi la rupture ngay ñëw di appuyé ci ñi fi nekkoon yàq système bi. loolu du mën a yëg. léegi docteur plan d'action bi lan la lan ngeen fas yéene. ñun ñu ngi ci rétention d'information bàyyiwul supervision aussi nee nañ dañ koy boycotté ñu mu mënti doon muy ci poste de santé yi ñu koy ñëw wala ku jógee au niveau national waxatuñ ci leneen li ci des nag ci fan yi ça dépend de la rencontre yi ñuy am ak ñoom bu dara génnul pré bi de grève nañ ko déposé dem grève ñi yaakaar ne mën nañ ko bañ a yegg que xam ni xeexuñu leen lii ñu def nii c'est pour. éviter que nit ñi gaa yi daan def daan fagocité yi pour ñeneen ñi ba yàqal leen loolu lañ leen di bañal bu leen continuer di leen déglu musiba dinañu daal loolu mën a ko toog nag bu ko toog jël ay ñoo xam ne ay soixante dix ans ñu ngi ko am retraité depuis belle lurette ñëw nga ne ñoom ñooy wax ci ñun ñi nga xam ne ñoo ngi xëy di liggéey mais ça pose un problème et c'est ce qu'on est en de faire te ñi koy def xam nañ ci intérêt bi ci nekk. te nañ ñu leeral na tamit xaalis bi ñu doon wax naan détourné nañ ko fi munoo wax ne mille mille milliards dugal nañ ko fii ci secteur de la santé de l'action sociale ci Covid bi te kenn mun la taxaw ni la qui sont les responsables tamit parce ñu mettre ko en compétition ku nekk fa nga war a nekk ñu teg la ko waaw c'est ce qu'on demande loolu ne merci beaucoup docteur euh, Seck ci leeral euh, ñuy fàttali ni docteur Seck yow yaay porte-parole bu fédération des syndicats de la santé jërëjëf ci disponibilité bi docteur